رسول إله العالمين تعالى قديمك نادايا fii mooy teen baay teen baay bi nag eh, ndox mi li lañ leen wax secret bi secret bi bàyyi ci ñaanoon bi ci bàyyi ñaanee moo tax bëri na jàngoro yu mi faj ci nit li mi faj daal siburu moo ci gën a tuuti moo daal li ko waral Nigeria Amérique Bénin Tchad Mali Mauritanie fu ne lay nit di jugee li fi ñëw ci nit sax ñun mënuñ leen a xam. fu ne lañ nit di jugee di ñëw wër teen bi ndax mën a jariñu ci ndox mi am na ñoo xam ni waa Nizira yi dañ koy duy di ko yóbbaale comme ça bu nit ñi demee màkk sam-sam bi ñu indi ñoom waa Nizira yi ñoom it noonu la ñuy def buñ ñëwee fii dañuy duy ndox mi yóbbu ko ne Nizira buñ demee di ci joxe sëri ci seen mbokk yi ñi nga xam ne ñëw ñëwuñu woon gàmmu si Karima Sadia teen bi ñu ngi ko fi def 1937 waaye biñ koy dekkilaat Alaaji Abdoulaye moom moo ko dekkil gars yi demoon nañ ba doon ko nar ko nar ko baare sax fatte ko waaye El Hadj Abdoulaye moom moo dekkil teen bii waaw. Baye moo ko fi defoon waaw waaw. xeet bu nekk lañ fi recevoir américain mauritanien nigérien euh, mauritanien Bénin Tchad xeet bu nekk day daje fii. Sénégalais yi xam nañ dëgg dëgg njariñ li. seen baay bi moom macha allah ñun yàgg nañu di teew fii di ci barkeelu te barkeel biñ ci barkeel itam macha allah saa su nekk rek buñ fi ñëwee buñ ci barkeeloo ba pare rek dañuy gis changement ci sunu yaram waaye dañuy gis changement ci ci mboolem sunu sunu sunu sunu sunu jubluwaay. looloo tax gàmmu fii day fees dal ba ñun sax duñ mën a liggéey. li ko waral ndox mi lañ moo leen yitteel ak jàngoro yi mi faj ci nit ak secret bi ci bàyyi ñaan secret boobu du dañ ba mukk bu dul gàmmu ak gàmmuwaat sax nit ñi nañ fii ñëw nit ñi fu ne la ñuy di ñëw teen bi daal moom duy tëj karima sajaya ñi defaat gàmmuwaat ma ne jaadu na ma daal di ñëw daal di def ziar laajte tamit ñu wan ma teen bi ma ñëw daal di barkeelu ci ndox bi. teen bu fees bay bal moo nekk nii lii mooy faydu teen bi mooy faydu. teen bi teenu baay la baay jalal nañu ñun dañuy jël laajte wuñu sax. moo taxit yàkkamti nañu ñëw fii rek ba agsi ci teen bi boo jël ci ndox mi ñu naan ko ñu jël ci ñu raayoo ñu jël ci appareil ñu yóbbuwaat ñu ñu yóbbuwaat ci sunu dëkk. depuis 2010 ba léegi. chaque année damay ñëw fii incha allah bu ma fi ñëwul gàmm rek ma ñëw fi gàmmuwaat di ñëw fii te bu ma fi ñëwee bu yoon bu ma fi mënti ñëw rek dinaa ak si ba ci teen bi barkeelu. ndox mi du jeex heure bu heure bu ndox mi wàccee rek boo xëy da ngay jugaat mu fekk fekk mu jugaat ci kaw lépp lépp lépp baatina la. fii moom duñ fi doyal. fii moom bu ñu sañoon fii la ñuy dékk waaye nag alhamdulillah li tax ñuy fi ñëw gammu gammu ñu ñëw fi gammuwaat njëriñ bi fi nekk ñun ñoo ko xam alamina taala qadimu kanadaya rasulu taala